Nous sommes le jeudi 16 mai 2019, amis internautes de Senclic.com. Merci et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau entretien. Je me nomme Souleymane. À côté, Moussa Formous responsable politique basé à Grand Yoff. Euh, ñu gis ne nag tey moom bokk na ci jeunes yi nga xamante ne ñu ngi Grand Yoff di yëngu ci politique di def ci social di def actualité yu am solo donc d' moo ñu poussé sax à que ñu mën Euh, décroché ko mën a jóg taag toog ak moom waxtaan ak moom donc ci carrière politique am ay activités yi muy def ak combat bi nga xam ne mu ngi koy mëne au niveau de APR ci Grand Yoff monsieur Merndi avant tout maa ngi lay remercier di la féliciter ci sa disponibilité am mbégte jàkkaarloo ak yow di la wax merci dalal ak jàmm ci invitation bi jërëjëf. Euh, jërëjëf Souleymane euh, maa ngi profité ci occasion di nuyu mon frère Diémé bi nga xam ne tey moo waral entretien bi tey. donc euh, di profité ci occasion vraiment di nuyu seen clic point com donc di nuyu vraiment internet yëpp à travers le Sénégal ak monde entier donc vraiment di leen di gërëm bu baax a baax ci entretien bi nga xam ne tey vraiment yéen a ma koy bëgg a defal donc di profité occasion bi tam di nuyu waa Grand Yoff yëpp yëpp donc di nuyu la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne tey ñoom laa àndal di liggéey. en politique depuis deux mille dix deux mille neuf ba léegi voilà loolu moo nekkoon sama ay euh, mots yi nga xam ne moom laay commencé introduire vraiment di nuyu tout le Sénégal ak ñëpp ñi nga xam ne tey ñu ngi leen di euh, déglu à travers euh, internet bi ak réseaux sociaux. Moussa Mendy tey suñu la doon laaj kan mooy Moussa Mendy lan nga ñuy wax. bon avant tout euh, je me présente Formose Mendy di responsable APR au niveau de Grand Yoff di en même temps opérateur économique. donc tey euh, li ma dugal ci politique donc daana aw moon benn ambition pour def politique gisum woon lenn loo xam ne tey jaroon na mu def politique wante dama xool Grand Yoff depuis ba muy Grand Yoff ba léegi wax dëgg fa yàlla politique bi ñu daan def euh, loolu moo fi nekk ba léegi mu nekk li nga xam ne ñun dañ koy nakarlu bu baax a baax loolu moo tax tey vraiment vu suñu statut ak li nga xam ne tey vraiment ñu ngi koy jëflante ak doomu Grand Yoff yi moo tax ñu ne vraiment ñun bàyyi ñu wàcc ci langue politique bi pour que vraiment def politique bi nga xam ne tey politique la bi nga xam ne tey day jëmloo Grand Yoff kanam donc loolu moo nekkoon suñu li nga xam ne tey euh, loolu ñu bëgg a defal waa Grand Yoff. Fermos maa ngi lay. laajte li nga xamante ne tey ñu def en résumé ci bilan bi nga xamante ne ni def nañ ko ci campagne yi ñu génn gis nañ la sur le terrain yaa ngi wàcc yaa ngi doon ànd ak Cheikh Bakhoum moom mu nekk coordonnateur Grand Yoff bu coordonnateur APR ci Grand Yoff tey soo doon def bilan statistiquement ci politique gu Grand Yoff ci campagne bi ñu dënmal lan ngay lan ngay def en résumé. ba foofu doonu am nañ ci satisfaction ndax tey euh, élection yi maa ngi ci àndoon ak sama camarade. muy sama xarit itam Cheikh Bakhoum le directeur général de l' agence de l' de l' État donc vraiment ñu def liggéey bu am solo fii ci biir Grand Yoff donte sax nekkul élection yi lañu ñu commencé woon liggéey wante liggéey bi dooroon nañ ko bu yàgg-yàgg donc balaa ñuy jëm ci élection yi mu nekk liggéey bi nga xam ne bu am solo la ñu liggéey ko fii ci biir Grand Yoff comme ni ko président Macky Sall bëggee rek noonu la ñu ko defoon à savoir ñu privilégions les porte à je pense que équipe bi fa nekkoon jeunes yëpp Euh, loolu moo nekkoon moo door bi et puis def nañu l'essentiel dem dugg Grand Yoff këroo kër waxtaan ak euh, militants yi ak population Grand Yoff yi vraiment lan moo waroon tax ñu waroon mënoon votel le président Macky Sall tey lan mooy njëriñu ñu votel Macky Sall ak tey Grand Yoff lan nag lan la fi président Macky Sall jot a def ci li nga xam ne infrastructure la ak côté santé ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne tey président Macky Sall def na ko vraiment tam ñu si remercier population Grand yi ndax nangoo dañu déglu ba fépp fi nga xam ne tey dañ fa demoon donc mu nekkoon satisfaction par rapport ak li nga xam ne président Macky Sall jotoon na ko tàmbali. loolu moo tax tey vraiment donc euh, ba ñu demee ci élection yi fii au niveau de Grand F euh, coalition yi nga xam ne ñoom la ñu doon xëccool vraiment la coalition Benno Bokk Yaakaar ay arrivé en première position avec 41 euh, virgule 19 pour cent mu nekk li nga xam ne tey vraiment. président Macky Sall gagné noonu Grand Yoff comme ni mu ko gañoon en 2012 donc loolu noonu moo nekkoon li nga xam ne tey ñun jotoon nañ ko liggéey fii au niveau de Grand Yoff si nag ak suñu coordinateur Cheikh Bakhoum voilà. ndam boobu nga xamante ne nii tey euh, jox ngeen ko président Macky Sall euh, au niveau de Grand Yoff ban satisfaction ngeen ci am. ba euh, ni mu ko mën waxee rek donc satisfaction avant tout ñun la dañ ci gis suñu bopp ndax bu dul dara. tey nous sommes la relève de Grand Yoff te tey ay ndaw la ñu ànd ak suñu camarade ñi nga xam ne tam ndaw la comme ñun mu ñuy déglu ñu koy déglu di àndi di liggéey donc je pense que bu ñu am président Macky Sall bu amee ndam fii au Grand Yoff rek euh, ci biir Grand Yoff ñun tey satisfaction la si ñun ndax dafa doon ñaaw ñu ne président Macky Sall na fépp te gañewul fii ci Grand Yoff ndax boo xoolee Grand Yoff mooy suukaru Ndakaaru tey vraiment yàlla may nañu ndam fii au niveau de Grand Yoff ak ci Sénégal li ko wër ba président Macky Sall am 58 virgule 3 pour cent donc ci Sénégalais yi nga xam ne tey wóolu nañu ko ñun satisfaction bi nga xam ne tey dañ koy am rek euh, mooy tey ñun wane nañu président Macky ni que ñun ñoo ko fi nekkal te loolu lu am solo la moo tax vraiment bëgg nañu mu ñuy déglu bu baax a baax donte ay ndaw lañu wante tey je pense que ñun ñooy relève Grand Yoff ak ki nga xam ne moom la ñu àndal di liggéey mu nag suñu responsable mi Cheikh Bakhoum voilà. aussi ñu gis si tamit que ci remaniement bi nga xamante ne ni Macky Sall def na ko donc gisaguñu benn responsable benn benn responsable politique bu APR ak Grand Yoff boo xam ne nominé nañ ko wala jox nañ ko benn poste vous en tant que responsable naka ngeen jàngatee loolu. waaw jàngat boobu nañu ko mën a jàngatee rek je pense que tey président Macky Sall euh, balaa moo def remaniement vraiment. xool na ku ci nekk fan la ko war a mun teg ak yaakaar bi nga xam ne tey am na ko ci moom comme sénégalais ñu amay yaakaar ci moom vraiment pour muy tabaxal ñu suñu réew yaakaar boobu noonu defe naa moom la am ci képp ki nga xam ne tey fal na la teg la ci benn poste pour que vraiment nga liggéeyal sa réew ndax tey moom loolu moo ko tax a jóg je pense que c'est un choix à saluer donte peut-être ñun ndawu Grand Yoff yi gisuñu suñu bopp bu baax a baax par rapport ak nomination yi mais je pense que mu ngi bàyyi xel te loolu dañ koy bàyyi ak conscience am mu xoolaat vraiment Grand Yoff ban pois la am ak tey ñun jeune Grand Yoff yi ban njëriñ lañ ko war a mun amal au-delà euh, de son quinquennat. na point gis nañu aussi tamit ci acti ci activités yi nga xam ne yaa ngi koy def ci wàllu social donc di jàppale jeune Grand Yoff yi est-ce que en retour donc war nga mën a xaaral ni euh, monsieur Mendy laaj mairie samp. politiquement comme ni ko ñëpp di def ndax bu dee base bi yaa ngi koy liggéey yaa ngi yaa ngi ci liggéey yaa ngi ci bay te xaaroo ci dara actuellement nii mais comme ñu ngi jub ci campagne électorale est-ce que mën nañ la xaar au niveau de Grand Yoff nga samp sa ndënd bokk ci compétition bi nga xamante ne nii nit ñi yaa ngi koy amal foofu pour nekk maire. waaw question boobu dam ci sawar répondre parce que ñun euh, daanaka man personnellement euh, yàgg naa def social avant sax Euh, dugg ci biir APR ndax boo xoolee sama histoire tey donc euh, première liste bi nga xam ne dañ ma fa investir c'était en 2009 ak euh, coalition waa PDS fa la nekkoon ànd ak ñoom dañ ma copté woon ma ñëw ànd ak ñoom liggéey ak ñoom donc ba élection yi jeexee tam vraiment si la ma sama xarit mu Cheikh Bakhoum woowee ma ñëw ñu ànd di liggéey boobu noonu ba léegi donc yàggoon naa def social tey mënuma exclure ni que tey war naa mun samp sama ndënd pour vraiment euh, mairie bu Grand Yoff ndax bu dul dara doomu Grand Yoff la tey tey kenn ëpp ma fa walla kenn ëpp ma fa cër bu fekkee li nga xam ne tey dañuy xëccoo am naa droit samp sama ndënd su fekkee man tey am naa ay ambition politique te tey du ma exclure loolu noonu ndax doomu Grand Yoff la tey am naa yaakaar ne que su ma sampee sama ndënd tey euh, am naa yaakaar nekk ci. kaw bopp mairie bu Grand Yoff mu nekk li nga xam ne tey bokk na ci euh, li nga xam ne tey ma dem ko soxla au niveau de Grand Yoff comme ni ko yeneen doomu Grand Yoff soxlee et puis man je pense que il n'est pas encore euh, waxtu bi jotagul pour vraiment may prononcé wu di wax damay samp sama candidature waaw wala déet parce que tey bu dul dara am naa ñeen ñi nga xam ne tey ñoom laa bokk di ànd di liggéey ñoom depuis des années mënuma def lenn lu dul tey vraiment dem waxtaan ak ñi nga xam ne ñooñu laa war a waxtaanal pour que vraiment su fekkee tey dama génn pour ne damay dama som bopp mu bañ a bett kenn donc lépp li nga xam ne tey dama ko war a mun def naa si diisoo ñoom waxtaan ak ñoom comme ni ñu koy defee ci nu mu gën a rafetee parce que Grand Yoff ñu ñëpp ñoo ko bokk ku fi nekk nga nekk maire ñàkk nekk maire fu la population yi soxla rek ngay dox seen soxla moo gën ngay dox sa soxla bopp te man je pense que ñun tey ci euh, ci yoon boobu noonu la ñu nekk depuis ba ñuy nekk ay ndaw ba léegi donc je pense que loolu lu am solo la et puis vraiment maa ngi profité aussi occasion bi di lancer un appel à tous mes camarades responsables yu jéem a toog waxtaan autour de l' essentiel xool tey vraiment Grand Yoff naka la ñu war a mun def pour que vraiment Grand Yoff génn fu mu nekk xam nga dugg ci yoonu émergence je pense que Grand Yoff am na capacité bi te tey. amul kenn koo xam ne amul benn responsable bi nga xam ne tey mun na ne dana demal boppam pour gagner Grand Yoff non c'est impossible munul nekk amul kenn koo xam ne tey dina tëb ne day demal boppam pour gagner Grand Yoff foog ñu booloo ndax mbooloo mooy doole te tey statistiquement nit ñi tey gis nañ ko en terme de pourcentage bu fekkoon tey résultat yi nga xam ne dañ ko amoon euh, au niveau euh, des élections présidentielles kon tey opposition bi nekk benn kon ñun dañu daan ñàkk Grand Yoff bu fekkoon élection locale la ñu demoon ndax ñun 44 virgule 9 pour cent 19 pour cent la ñu am opposition bi am leneen li ci des comme ñoom dañu doon jàll directement nit ñu toog donc je pense que il est mo euh, c'est le moment pour que vraiment responsable yëpp ñu toog autour de l'essentiel xam ne li nga xam ne c'est déjà un acquis ci jëm ko consolider waxtaan suñu biir ba vraiment defar benn liste bi nga xam ne donc doomu Grand Yoff yëpp yëpp dañ ci gis seen bopp muy tukulóor beeg joolaa beeg manjaago bi ñëpp ñu ñëpp ñoo bokk Grand Yoff mais élection locale jotool dara ak élection présidentielle parce que tey résultat yi nga xam ne dañ ko am président Macky Sall moo ko liggéey ñun nag tey bu ñuy jugé dañuy jugé selon ñun li nga xam ne tey dañ ko liggéeyal Grand Yoff tey képp koo xam ne tey da ngay xëccoo nekk doomu Grand Yoff loo am rek cela veut dire loolu yaa ko liggéey te tey Grand Yoff ñun doomu Grand Yoff ku si nekk liggéeyal nga Grand Yoff li nga xam ne tey mérito nga nekk maire Grand Yoff donc lu ñu ñaan ñëpp mooy maanaam coalition benn Bokk Yaakaar bi nga xam ne falaa nekk ñu ñëpp ñu toog baña a kenn toog au tour de l'essentiel xool vraiment naka la ñu defaay benn list bi nga xam ne tey bu ñu demee élection war nañu am yaakaar ni que dinañu gagné boo xoolee ba ci biir tey itam président Macky Sall xëy na dina toog dañuy seetaan ne Grand Yoff jaragul ma leen di parce que tey lu toll ni commune Grand Yoff am plus de deux cent mille euh, comment dirais-je deux cent mille euh, am yi nga xam ne ñoo fa yeew te tey mun mënuñu fi am benn ministre loolu ça cause problème parce que problème bi lan la tey ñi fi nekk tey responsable déggoo ñu yàlla nag ñi nga xam ne euh, tey da leen may ñun am ay post de responsabilité nangu ñu déggoo seen biir. donc xëy na moo waral loolu xëccoo bi dafa bëri te man je pense que c'est pas le moment ñuy toog di xëccoo ndax nekkul gàddo bi nga xam ne ku si nekk da ngay ñëw dagg jël sa wàll donc dafa am solo vraiment ñun ñëpp ñu toog ñu waxtaan bu ñu jubooy suñu biir bu ñu gañee élection yi ñu jëm ni je pense que président Macky Sall dina lu mu bon bon bon bon dina xam ne tey sans moom waa Grand Yoff mën nañ dama seen bopp tey je pense que foofu la ñuy gën a joxe cër bi nga xam ne tey dina gëstuwaat ndaw yi nga xam ne ñoo fi nekk comme ni ma la expliqué rek xëy na mun na bañ a nommer ay ay ay ay ndaw dina xalaat ne que ñii peut-être ils sont pas matures wala fu ma leen di xaaree gisaguma leen bu foofu noonu ba ba léegi ndax nañu fàttaleku en 2014 ànd nañ fi premier ministre mooy euh, euh, madame Mimi Touré vraiment xalifa euh, Sall gañe ko fii nii au niveau de Gagny mu nekk histoire première mu nekk histoire ci Sénégal ndax amul benn premier ministre bi nga xam ne tey ñëw na ci goxam ñu gañe ko. Boulet moom man je pense que tey il faut ñu jàng ci li passé pour que vraiment li ñu daloon ba ñuy dañaat dalaat et puis je pense que aujourd'hui suñuy naree toog di xëccoo donc gars yi dañ ñëwaat jaaraat ci ñu kaw gagné ñu facilement et tey ñun lépp li nga xam ne tey dañ ko doon xeex donc day mujj nekk zéro. man c' est li may jaaxal mooy c' est quoi le problème entre responsable yi nga xam ne ñu ngi nekk APR nekk biir Grand Yoff su fekkee dafa dañu mën a benn combat boo xam ne c' niveau national da ngay gis ne ñu booloo nekk benn. xeex ko comme élection yi passé ñu seetlu donc responsable yëpp nekk benn combattre pour xeex euh, euh, président bi am deuxième mandat donc mais su fekkee nouveau local la damay gis benn firange ku ci nekk da ngay bëgg a xëcc taw yi jëm ci man yow mi nga xamante ne ni jeunes yi Grand jox lañ la nopp am nga benn influence bu mag ci ci ci ci Grand Yoff donc ban message ngay lancer ci loolu deuxièmement aussi bi ñu defee micro trottoir wàcc nañ sur ñu ne ñu ah, jeunes yi ñu ne ñun dañu tayal sax léegi ci jàppale jeune boo xamante dafa yeewoo Grand Yoff à chaque fois ñu jàppale benn jeune boo xamante ne su demee rek après dafay nekkal boppam donc intérêt Grand Yoff lay jiital au départ ñu ñëpp ñu ñëw mais finalement après dafay exclure intérêt boobu ñëw def intérêt personnel donc yow en tant que responsable Grand Yoff ñaari question yooyu lan nga ci lan nga ciy tontu. waaw merci donc euh, première question boobu noonu bëgg a rek mooy tey. Euh, nañ ko daan defee rek président saay bu soxlee ñëpp bàyyi jox président li nga xam ne tey moo ko moom moo je pense que ñun en tant que responsable war nañu mun def benn autocritique parce que élection yi lu ngay gagné dafa yomb ak lu lay ñàkkaloo élection tam dafa yomb rawatina ak élection locale mooy li nga xam ne tey sànq dama ko wax il faut pas que ñuy dem en rang dispersé ñun am nañu doole bi nga xam ne tey bu ñu jiitalee kenn te gëm yàlla mën nañu gagné. mais nag bu fekkee damay xëcc fii keneen di xëcc fee duñu mos a gaj am ndam donc loolu mooy l'essentiel bi tey je pense que problème de leadership waratul poser Grand Yoff parce que ñun ñëpp Grand Yoff xam nañu ku si nekk li nga mën ak la nga mënul loolu moo ci ëpp solo li ci des nag njiit yàlla moo koy def ci doomu aadama ku yàlla newul doo mos a jiite doo mos a jiite donte xëccoo bi day ëpp sax day day bari mu nekk li nga xam ne ñun à chaque fois daf ñuy yàkkal te tey vraiment bëgg nañu mooy damay expliquer li ma wax sànq rek ñu waxtaan ñun en tant que responsable ñu bañ a kenn waxtaan ba juboo parce que loolu mooy mun tax ñu gagné élection yi bu dul loolu tam ñi fi toogoon ñoo fi toogaat te tey vraiment ñun gis nañ ni que ñooñu amalu ñu benn yoon intérêt population bi lu dul vraiment dañuy gën a delloo fi nga xam ne fa la ñu nekkoon communo u Grand Yoff war na mun dépasser stade bi nga xam ne fa la toll nii boo duggee Grand Yoff sax da ngay yéemu doo am loola neex te ñun mënuñu fa nekk plus de 40 ans tey aujourd'hui nekk ay doomu Grand Yoff juddoo biir Grand kenn gënoo ñu xam grand te tey amul benn changement bi nga xam ne tey nit gis na ko lu dul tey nit ki mooy tabax këram amul lenn benn infrastructure bi nga xam ne tey mairie bi da ko fa def kon loolu vraiment ñun neexuñu c'est vraiment désolant comme ni ko tubaab bi di waxee et puis ñun dañu jóg tey vraiment pour liggéeyal commune bi commune bi nga xam ne tey ci ay recettes lay mun dundee Grand-Yoff ñàkkul potentiel bi nga xam ne tey vraiment war na mun defar euh, goxam mairie bi moo war a mun uti budget bi xaalis fa la koy jëlee ci recettes yi te loolu am na ci biir Grand Yoff Grand Yoff nekkul quartier bi ndaw comme ni ma ko waxee y' a 64 quartiers te tey am nañu potentiel bi pour que vraiment ressources ñu génnee ko au niveau de Grand Yoff defaraat Grand Yoff ñun tey vraiment loolu moo nekkoon suñu préoccupation te man je pense que je lance un appel encore à tous mes camarades vraiment ñu jéem a toog de l' essentiel xool vraiment naka la ñuy. waxtaanee dafa benn liste bi nga xam ne tey ku si nekk di nga ci sentir sa bopp parce que tey nit ki boo sentirul sa bopp si dara rek doo si vraiment doo si sori donte di nga ànd ak nit ñi sax mais da nga leen di seetaan ci biir mais ku si nekk tey bu sentiree ne yëf bi sama yëf la donc loolu daf ñuy permettre ñu am ndam bu set wicc parce que tey loolu liggéey nañ ko bu baax a baax ci côté ndaw yi tey donc euh, li nga xam ne loolu la amoon lu ma parce que loolu am la fii à chaque fois noonu la ñu doon naxee ndaw yi et puis je pense que tey population sénégalaise boo ko xoolee euh, à plus de euh, cinquante cinq pour cent ndaw yi ñoo ëpp te tey ndaw yi am na leen li nga xam ne tey représenté nañ ko ci biir Grand Yoff ak ci Sénégal ak li ko wër donc moo tax ba tey ñun lu ñuy wax suñu ay rakk ndawu Grand Yoff yi nañu toog jéem a essayer def changement bi changement bi mooy lan ñu nangu ñoo déglu parce que ñun dafa ñu politique politicienne ñun suñu teraanga ak lu ñuy am dañ ko am balaa sax ñuy dugg ci politique voilà donc nekkul politique moo tax ñu am teraanga nekkul politique tey moo tax ñuy tiisoo ak ay nit di waxtaan ak ay nit dañu ñëw nag ànd suñu expertise ak suñu xam-xam suñu njëriñu euh, njëriñ bi nga xam ne tey am nañ ko bu ko doole boole dugal ko ci vraiment suñu gox pour que suñu ay doom suñu ay sët mun ci bénéficier wu message bi nga xam ne tey dañ koy lancer jeunes yi mooy lan tey ñu ñëw toog déglu ñu ñu leen di tàllal loxo pour vraiment ñu ànd liggéeyandoo ak grand man je pense que mënuñu def dara sans pour autant jeunes yi nekkul loo xam ne nag jeunes yi leen jël exclure leen donc y a pas mal de problèmes yi nga xam ne tey am na au niveau de la jeunesse ñëpp xam nañ ko tey ndaw yu bëri amuñu xëy c'est c'est un problème bi nga xam ne c'est c'est c'est national c'est un phénomène je peux dire international fépp dëkk boo dem ci àdduna si ndaw yi dañu am problème mu xëy mu nekk li nga xam ne tam vraiment ñun ñu ngi ciy bàyyi xel bu baax a ba xëy yooyu sax ñun ñii bu ñu yàlla mayoon tey ba ñu gagné euh, commune Grand Yoff mën nañ ko créer fii au niveau de Grand Yoff donte mënuñu ko def à cent pour cent mais tout au moins ñi nga xam ne ñi fi ñi fi nekk bu ñu defoon un ñun dinañ def cinq ça c'est sûr. Euh, euh, fi nga daanale sànq laa bëgg a wax mooy lan yéen responsable APR yi nekk Grand Yoff su ngeen jëlee mairie bi di ngeen defaraat di ngeen di jafe-jafe Grand Yoff ak jeunesse yi ñàkk liggéey bi yu bëri da ngeen ci taxaw mais gis ngeen ni pour gagner ko dina yomb ci yéen parce que euh, bu fekkee ne da ngeen nekk ay responsable nekk biir Grand Yoff ku nekk nanguwut a bàyyi ak sa morom donc Cheikh Bakhoum le DG de l'ADIE donc moom pare nekk. maire Grand Yoff responsable APR la bu Grand Yoff kii di Adama Faye aussi tamit pare na pour nekk maire Grand Yoff responsable bu APR donc ñaari combat yooyu noonu ngeen bokk benn benn màkk bi est-ce que yaakaar na ne aussi tamit loolu mënu mënu leen mënul wàññi seen doole Grand Yoff ba mën a nga xam ne mën ngeen perte élection maire yi. waaw mooy lu ma expliquer rek xam nga euh, ku ci mel ni euh, Cheikh baaxu man sama promotionnaire sama xarit la ndax ñoo jàngandoo Adama Faye moom sama grand la. donc je pense que lu ñu bëgg ñu ñëpp benn bi la mooy Grand Yoff ndax tey ñun Grand Yoff ñu ñor je pense que loolu dañ ci àggagul et puis je pense que su fekkee président de la République mu ngi may dég mu ngi may déglu je pense que tey war na ci mën wax ndax lu mu bon bon bon tey voilà donc loolu noonu dafa nekk li nga xam ne dañ koy euh, liggante à l'interne je pense que tey président Macky Sall am na si kàddu par rapport ak euh, nu ñu koy waxee candidature Grand Yoff ci naka la ñu war a mun demee parce que tey boo gisee ñu def système parrainage parce que bëgguñu ku nekk nga xëy rek nan woy dama bëgg nekk maire dama bëgg a nekk lii dama bëgg a nekk lee parce que faw nga am mbooloo ba pare et puis man je pense que ñaari nit ñi nga tudd noonu tey mi Cheikh Bakhoum di Adama fay ku si nekk am nga mbooloo bi nga xam ne tey mi ngi nekk sa ginnaaw ñuy ànd di liggéey nag ñu doon benn di liggéeyal APR donc tey bu desee loolu élection euh, locale mooy je pense que aujourd'hui bu ñu toogee waxtaan daañu juboo donc ñoom ñoo war a mun xàll yoon bi tey ba nga xam ne tey ñun ñi nga xam ne ñoo nekk seeni ginnaaw du ñu am xel demal ma ñëw ndax bu boobaa liggéey bi day gën a yomb keneen dootu soxlawaat di poser candidature am yaa ngi may dégg bu baax baax man tey Cheikh baaxum su ne dafa soxla mairie bu Grand Yoff man mun naa ko bàyyi mu dem mu topp ci ginnaaw mais su nee soxlool man mun naa taxaw ma ne damay poser sama candidature wala su ma toogee tey gis ni que lu ñuy doxal wala lu ñuy def neexuma am naa droit ma poser sama candidature ndax doomu Grand Yoff la loolu moo tax ma ne la mbooloo bi mooy doole loolu faw ñu toog ñu régler ko à l'interne ñun suñu biir ñooy toog ñu waxtaan bu juboo ku ñu war a mun jiital ñu jiital il n'est pas dit ne que da ngay nekk tête de liste rek nekk forcément maire loolu c'est dafa nekk li nga xam ne tey bu yàlla defee aussi ñu gagné itam conseil ñooy toog xool ku leen doy moom bu ñu toogoon Adama fay ak ma bokk ànd liste ak ñoom ñu ànd Adama Faye ak Cheikh Ba ñuy xëccoo mais ñi nga xam ne tey ñu ñoo gagné euh, ñu ñoo gagné ñu nekk majorité ñuy xool ñu ne ah ñu ne Formose moo ñu doy mais bu desee lu dul ñuy voté kan moo war a nekk maire damay votal bu boobaa maay jàll loolu amul dama ma ñëw lu ci ëpp solo rek mooy gagné bu ñu gagné ba pare nag ñu doog a xool vraiment ki nga xam ne il est xam nga koy porter haut la main Grand Yoff ñu jox ko suñu commune bon je pense que loolu moo ëpp solo xëccoo bi yëpp dafa nekk li nga xam ne daf ñuy tàrrel te loolu lañ ko war a jël tegee na de waxtaan autour de l' essentiel xool naka lañ defaree liste bi nga xam ne tey ku si nekk da nga ciy sentir sa bopp. ok léegi euh, Macky Sall yàlla dogal na mu dem euh, jël am deuxième tour donc nit ñi yaa ngi wax ne euh, dina posé waat candidat muy ñetteelu. pour laaj laajaat réew donc mu nekk benn polémique boo xamante ne ni nit ñi yaa ngi koy waxtaanee donc opposants yi nga xam ne ils sont contre ñu ngi profito di def diabolisation par rapport ak population sénégalaise bi yow lan ngay wax ci loolu. bon man je pense que loolu président Macky Sall tontu na ci déjà euh, sénégalais yi je pense que ku xam président Macky Sall tam nga xam ne tey vraiment yàgg na ci nguur depuis daanaka ba muy nekk directeur ba léegi donc ça fait boo xaymay at yi boobu léegi ça fait euh, ça fait plus de bon 15 ans donc ngay demaat ba 2024 donc ça te fait au moins 22 ans nga nekk au, au pouvoir donte sax génn nga bon 2000 kii diggante euh, non non génn nga 2008 ba 2012 nga nekk opposition mais tey ku xam statut président Macky Sall nga xam ne nekkul président bi nga xam ne tey day wax lii di dindiwaat lii loolu tey bu taxawee assurer sénégalais da leen deux mandats la man je pense que ça lui suffit largement leneen la mooy tey defar arrière am pour que vraiment tey bu fi jógee ku koy wutu vraiment continuer ci PSE bi mooy maanaam plan Sénégal émergent bi foofu noonu lañ koy xaaree te yaakaar naa ne si quinquennat bi loolu mooy nekk liggéey bi nga xam ne tey mu ngi koy liggéey mu ngi koy liggéey ci suuf nag nekk loo xam ne tey dina ko dévoiler ba nit ñëpp xam lii ak lii ak lii mais je pense que moom consciemment mi ngi ciy liggéey bu baax a baax pour que vraiment bu fi euh, bu yàlla defee tam en 2024 mu organiser ñu élection yu transparent mu dem jox lengay keneen je pense que loolu mu ngi ciy liggéey te aw xel ñaar ndax dina poser à troisième candidature non loolu moom vraiment moom tontul na ko boppam sénégalais. appel dialogue nationale bi nga xamante ne bi mu ngi koy def euh, woote opposition bi au bi donc ak civil bi yëpp ñu dajaloo waxtaan. boole xel yi boole xalaat nekk benn liggéey Sénégal donc ñeen nag ñi jàpp nañu euh, politique moo ko lal yow en tant que responsable APR bu Grand Yoff lan nga gisee dialogue national bi nga xamante ne nii son excellence monsieur Macky Sall organisé na ko pour ñu booloo xalaat yi boole xel yi nekk benn. waaw loolu noonu moom euh, dañ koy rafetlu bu baax a baax ndax président Macky Sall nekkul tey la doog a commencé woote dialogue te loolu sax dafa yàgg am ci suñu réew. donc depuis euh, PD euh, jamono PDS Abdoulaye ba muy nekk opposition euh, Abdou Diouf nekk au pouvoir nekk président jot nañ fi def ay dialogue bu bëri yi nga xam ne tey damoon nañ sax ba am vraiment gouvernement d'union nationale ba maître Abdoulaye bokkoon ci biir gouvernement wu Abdou Diouf bi nga xam ne Abdou Diouf moo nekkoon président kon dialogue mënul weesu loolu noonu mais tey nag dañu toll fi nga xam ne tey opposition moom. ñoom dañuy chaque fois dépendre seen statut mooy lan ay opposants lañu. mais ñi euh, ñenn ñi dañoo jàpp ne Macky da ko yéex a def waroon na teel a def dialogue national bi donc bu bàyyee ba mu demee nii mu def dialogue national bi leen def ñi dañuy jàpp ne politique moo ko lal dafay da ko yéex a def. ba loolu xam nga aussi buñ la wooyee ci am ndaje nga ne bëgg ñëw wala diw dafa war a ñëwul boppam fekk si ma loolu mënut a nekk président de la république mënul dox di dem seeti opposition bi ñëpp. di toog di dox ñëpp woo opposition yëpp kenn par kenn di mais dafa am ñi nga xam ne tey ñooñu loolu mooy seen liggéey ku mu yabal nag day niroog président Macky Sall moo fa ñëw parce que moo la délégué ne dama wool ma diw dama waxtaan ma diw nii ak nii ak nii je pense que tey ñoom ñëpp ku ci président Macky Sall woon tam da nga ko war a wuy ji pale mais du ñu mos a dem wuy ji ko voilà. leneen li aussi tamit li am solo am solo mooy euh, euh, monsieur Mendy yow responsable APR bu nekk Grand Euh, ku wax Grand Yoff xel yi dina dem ci Khalifa Sall monsieur le maire tey euh, gis nga ni problème am ni mu demee en tant que Grand Yoffois donc problème mu Khalifa Sall lan nga ciy wax et ban jàngat nga ci indi ak lan nga ci wax aussi. waaw bon problème mu Khalifa Sall euh, vraiment man mi personnellement neexuma ndax mën naa ne sama papa la ndax moom ak sama yaay la woon. ñoo doon jëflante sama yaay nekkoon PS mu nekkoon xaritam nag bu baax a baax sama nekkoon jigéenam vraiment di koy jàppale bu baax a baax ci parti bi donc tey li nga xam ne moom moo ko dal ni ñun neexuñu te vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla mu jóge fa ci nu mu gën a gaawee ndax tey euh, nekkul li nga xam ne tey ñun dañ ko ko ñaanaloon wante nag dëkk bi dafa am na muy doxee comme ni ñu ko waxee rek comme mu ngi si loxoy justice justice tranché na tranché na tam bon yu bàyyi justice daf liggéeyam nag lu ci des nag tey loolu président Macky Sall rek moo am droit tey taxaw ñu té euh, tëj nit mu ne ah diw rek baal naa ko donte moom mooy euh, kii nuñ koy waxee moom mooy moom mooy njiitu réew mi loolu moom kese moo am sañ-sañ def loolu noonu donc euh, loolu noonu daal laa amoon lu mu si wax parce que tey képp ku xam Khalifa Sall tam xam ne doomu grand comme ñun ñëpp. ñi nga xam ne Grand Yoff la ñuy juddoo ndax dañuy juddoo nekk xale yu ndaw rek Khalifa Sall lañu ñu daan dégg ba ba ñuy màgg voilà. ok euh, ci ci kaw xalifa Sall ba léegi donc nit ñi dañu jàpp ne otage politique la woon donc élection yi la woon da doon wàññi dooleem ici tamit dañ doon Macky dafa dafa waa APR dañ jàpp ne xalifa Sall mënoon na yëngal traumatiser tuuti ci euh, deuxième mandat président Macky Sall donc ñii nag jàpp ne otage politique la maintenant su fekkee otage politique la politique bi jeex na donc Macky falu na en tant que responsable APR yow lan ngay wax sa président pour ci kaaw Macky Sall ci kaaw Macky Sall. ci kaaw Khalifa Sall. voilà donc ci kaaw Khalifa Sall man li ma ci mën a wax rek. voilà ñun bon daanaka boo xoolee sax man je peux dire que nekk du affaire politique daanaka vraiment nekkul affaire politique parce que. tey ñun bu ñu calculer en 2016 demoon nañ fii référendum yi Khalifa Sall ñëw nekk ci ko mais teewul dañ leen gagné ba président Macky Sall woote référendum yi kam moo ko président Macky Sall moo ko wooteen tey ñun ñu gagné leen largement à Grand comme tey nu ñu leen gañee en deux mille 2019 kon man je pense que nekkul otage politique tey lu ci ëpp solo mooy lan tey sax bu yàlla defoon tey euh, nekkuloon prison bu ñëwoon tam ñun la fay fekk ñun jeunes yi ñooy jàmbaarloo ak moom xeex ak moom ba gañewaat comme ni ñu ko gañee nii mais je pense que loolu amuloon benn incident fii ci biir Grand Yoff au contraire ñu ñuy sax daf ñu doon xaw a sonal ci benn côté xam nga nit ki rek sénégalais da ngay xaw a sentimental da ngay xaw a tam am yërmande ci nga xam ne tey da ngay jàpp ne que dañ ko néewal doole wala lii wala lee mais man je pense que aujourd'hui loolu amul benn effet te man je pense que peut-être mënu ma prononcer wu trop ndax otage politique la lii wala lee mais dossier bi comme mi ngi nekk ci justice rek nañu bàyyi vraiment justice bi mu def liggéeyam comme ni mu ko waree président Macky Sall tam dogal bi mu ci war a mun jël tam mu nekk li nga xam ne tey mënul bett kenn parce que tey suñu constitution moo ko may tey nit def dara. mu toog gis ni que kii vraiment comporté na nii nii war nañ ko mun baal ñu baal ko kon nekk Khalifa Sall tey bu ñu ko administré baal ko nekkul le premier Sénégalais bi nga xam ne tey moom dañ ko defal faveur boobu noonu am na ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne tey def nañ ko donte justice mooy doxee noonu daal voilà. justice mooy doxee noonu donc euh, quinquennat bi Macky Sall gis nga ko cinq ans moo ko fi desee ngeen di ay ndawam di responsable responsable am ci grave euh, ci cinquant ans yu bi des. donc yéen en tant que responsable lan ngeen ci mën a xaare au niveau de Grand Yoff voilà donc euh, cinq ans yi nga xam ne tey moom la ko moom moo ko desewaat ci bopp réew mi vraiment ñun ñu ngi koy euh, ñaax vraiment mu gën a gëstu la jeunesse de Grand Yoff parce que c'est une jeunesse vraiment euh, dynamique bi nga xam ne tey vraiment on a toujours porté le combat de la paix au niveau de Grand Yoff muy suñu coordination ak bépp jeune bi nga xam ne tey mi ngi nekk au niveau de Grand on s'est toujours mouillé le maillot sans pour autant attendre des récompenses xaaruñu si dara moom nag la yàlla def ci bopp réew moom mooy xool tey li nga xam ne tey ñun ndaw Grand fii mérité nañ ko mu jox ñu ko duñu duñ koy taxaw nag forcé ko jox ñu lii wala lee moom mooy xool tey li nga xam ne tey ñun yelloo nañ ko parce que tey ku xool en terme de euh, d'électorat Grand dafa bokk ci communes yi nga xam ne ñoo gën a mag parce que tey ñun boo xoolee tey ci ñi nga xam ne ndombal tànk yi nga xam ne tey am nañ ko on a benn directeur la ñu am muy Cheikh Bakhoum voilà donc tey nomination yi nga xam ne donc yooyu par décret la moom rek lañ fi gis pour l'instant fii au niveau de Grand Yoff peut-être ñi ngi xaar tam fii ci jeunes yi mun na ma fi ay PCA xam nga donc euh, ay chargé de mission ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne tey vraiment ça Euh, soulage la jeunesse ba tey jeunes yi nga xam ne jeunes yi nga xam ne vraiment dañu mun sentir seen bopp ci biir partie bi nga xam ne tey ñu ngi fi nekk donc doote dañuy liggéeyal parti bi donc euh, am nañu lenn li nga xam ne tam jeunes yi soxla nañ ko vraiment ñu gën leen jàppale ci li ma expliqué noonu ak surtout nag ci wàllum xëy bi donc loolu lu am solo la comme ni mu ko expliqué rek donc tey bëgg na ci quinquennat mu créer plus de un million euh, d'emplois au niveau des jeunes te tey foog naa ne président Macky su ko waxee rek am na capacité bi tey tey mun na ko def ñun vraiment loolu lañ koy ñaan rek mu jéem a xool naka lay caser tous les jeunes du Sénégal donte mënul nekk tous les jeunes mais le maximum de jeunes mu gën a gëstu itam Grand Yoff ci vraiment li nga xam ne tey ñun ñu ngi nekk sur le terrain di koy liggéeyal. merci amis internautes d'avoir suivi l'émission de senclic.com tey suñu invité monsieur Formose Mendy la nekk responsable politique bu APR. nekk foofu ci Grand Yoff euh, di maa ngi lay remercier di la sant ci sa disponibilité ñëw wuy si ñu ba di la wax sa mot de la fin. voilà merci Souleymane donc di remercier euh, euh, Senclic point comme je pense que tey ci opportunité bi nga xam ne tey da ma ko may mu mën a toog waxtaan ak sama mbokk waa Grand Yoff yi ak sénégalais yi ak. le monde entier à travers euh, internet bi donc je pense que lii lu am solo la euh, di leen di gërëm di leen di sant di sant euh, ñëpp ñi nga xam ne tey danañu seetaan ci seen site bi donc vraiment di gërëm population Grand Yoff bu baax a baax ci confiance bi nga xam ne tey dañ ko am ci ñun en tant que jeune donc ñu décider pare pour vraiment xeexal Grand Yoff ba Grand Yoff mën a am ndam ci élection yi jëm nii pour que vraiment mu am changement radical parce que ñun tey je pense que am nañu capacité yooyu noonu peut-être mënuñu toog di koy wax un peu partout suñu ay stratégie la la lañ la war mun teg mais foofu àggaguñ fa mais maa ngi gërëm ñëpp di leen di gërëm bu baax a baax vraiment donc ci euh, ni ngeen ma recevoir yi nii tey di leen di gërëm di lay sant